si réew mu normal nga ne yow da ngay xeex tourisme nga ne askan bëgg naa mu xam leen. ba pare mhm. yow ngay daw débat. ok loolu jàpp jàpp ni. ok mais terrorisme boobu aussi gis nañ ko assemblée nationale xam man dama yaakaaroon ne wax ne maanaam yow boo génnee mu cër la foofu tourisme tàmbalee. waaw mais ah? ma ñëw ma ñëw mais gis naa aussi euh, man dama yaakaaroon ne euh, kii Assane Diouf rek a mën a xorom. waaw mais gis naa député yi mën a xorom mhm. gis naa député yu mën a xorom. waaw mais xam nga xorom lool keroog dégg naa la nga xorom. xam nga xorom <laughs> keroog xorom xam nga xorom. lool dañ lay pousse ba nga sës nga xorom. <laughs> dan maa pousse pousse ba ma sës te dañoo xorom a xorom a xorom ba tey. waaw sama grand frère bi si commission technique bi. Mm-hmm. ndax tey ki nga xamante ni mooy député Pikine bi. Mm-hmm. ndaw soosu xaw ma. Mm-hmm. Euh, ñu wax ko ndaw sa nu mu tuddati. yéen meen di xaw ma. Euh, déedéet ki nekk questeur euh, Awa Niang. Awa Niang waaw. Awa Niang si commission technique. Serigne Cheikh dafa laaj ministre bi ni ko dama bëgg nga ñu leeral ñu le faatu Fatou Fatoumata Matar Ndiaye nga xam si ñoom la bokkoon mm-hmm. nekk conseil économique social ñu rey ko laa wax mm-hmm. dañ koo rey ñu tuumaal si waa APR mm-hmm. ay responsable politique yi nekk ak moom ba léegi nii may wax a yow léeru bi ñu tàmbalee di enquêté ba ñu tudd ay tur ñu far ko eh, kii mais ministre bu ñëwee am nañ sañ-sañu ni ko le dossier Fatoumata Mata Ndiaye bu Pikine mhm. nañu ko leeral ndax ay bokkam bëgg nañu xam yan responsable APR ñoo newoon si ginnaaw pour ñu rey absolument après mu mer di saaga Serigne Cheikh ni ko warul question boobu mhm. ki nga xam mooy Djibril taxaw foofu di saaga Mame Diarra Fam ak Mariso Ndiaye ci commission technique bi mhm. commission technique moo gën a nekk moo gën a metti plénière te yéen gisu leen ko woon man mi nga xam en tant que vice président ni ko nan def suspension li nga xam ne moom mooy débat bi. ñu def mhm. suspension ay minutes pour que mhm. continuer waat. est-ce que assemblée nationale duñ ko tuddee léegi arène nationale. ma ne assemblée nationale bi a mooy ña mhm. mooy toogub Saalam wax ni diw bëgg naa mu nekk député diw bëgg naa mu nekk député diw bëgg naa mu nekk si yow assemblée nationale bu normal réew mu jaar yoon. réew mu jaar yoon laa lay wax bu ñu demee ba Pidmit mën a nekk vice président assemblée nationale nga xam ne réew mi jaru yoon. kan bu ki ñuy wax Pidmit. ki gën a tuuti si assemblée nationale Pidmit bi dëkk Thiès. <laughs> bu ñu demee tey ba mën a nekk vice président assemblée nationale premier vice président nga xam ne tey bu mu soxla nekkutoon mooy moom mooy seere. Uh-huh. place uh-huh. xamante réew ma. Uh-huh. ay borom mi xam-xam ne tey borom mi xam-xam yëpp dañoo dem toog. mooy Pidmit mooy xam-xam yëpp dañoo dem toog. ndax gàcce gu ñu am ci institution ni muy doxe bàyyi ñi nga xam ay borom mi waxkat lan borom mi làmmiñ ñu rëy lan ñëw nag défendre nekk ci kanam. moo tax réew mi mënut avancé. Mhm. ndax ñi war a wax waxuñu ñëw tax honorable le respect que je vous dois est-ce que yàlla na tey jii un représentant du peuple taxaw assemblée nationale di saagay ndey. que surtout xam nga xam nga xam nga saaga. te yow saaga mën nañ ko baal ñëm mais yow. du ko baal ndax fi nga ndax fi nga bokk. xam nga kenn refulu ko man mhm. surtout Bamba la. waaw bu ma saagaa public. Mhm. du yoon. ok bu ma saagaa lu dul du yoon ndax yarewul ma loolu. mais nit ku nekk da ngay juum aussi. Mhm. saaga bi dama juum ma saaga. ndax ah. depuis 2017 ba fi may wax yow. Mhm. musuma saaga. Mhm. waaye ñoom ñii bu la dee topp ci suuf di la saaga ci suuf. nga xam ne yow boo saaga saw saaga la ñuy gis. ba yàgg nga topp leen di xorom rek. <laughs> ndax ñoom dan maa saaga saaga saaga moom mi def naa faa moom. déet waay yéen ñaar ñi. Ousmane Sonko def mbëri si la. Eh. def naa ko ko assemblée. <laughs> maanaam ba xotti tubéy ba xotti tubéy ji. kan moom nii moom nii maanaam muy maanaam mu naan bàyyi daa xeem na mu jox ma ndax ma naan. bu ma dama ko yërëmu ndax dama naan ku ma noonu ci yéen ñaar. maa ci maa ko man doog daar laa xam nga bokkuñu man. damay ànd ak ma song songum suuf rek. xam nga man damay xeexew suuf. di xeexew kaw te bàyyiwuma sama bopp mais sama taalibe la waaye ginnaaw bi. Uh-huh. nee na daa juum ndax xam nga tax. Mm-hmm. moom taalibe Sëñ Tuubaa waruñu ko mm-hmm. dugal si leen xam nga ñoom dañuy am kersa léeg-léegi mm-hmm. ndax bu demee si waajuram muy papaam toog ay doomam toog. ok ay magam toog ni ko ki ngay xeexal day maam nga yaakaar. Mhm. Macky Sall jaru ko. ok day am kersa. Mhm. parce que man dama ñëw pour wax. Mhm. loolu laa am. aw ma maturité pour mën a wote mais am naa sañ-sañu kàddu pour mën a wax ñoom li nga xam moom mën a moo leen mën a contrecarré nan wax ni Macky Sall li nga wax ni def ko fa def ni fili def ni fili mais man bu ma dee wax moom la ma jote woon mooy mu di ma saaga ci suuf naan ma yow sëriñu trianga dama am ay taalibe de yoo xam ñi sama ginnaaw yaakaar ma mu di ko wax péccu mu tàgg sama kàddu Ismaïla Sunel Tine bi kooku. Mhm. Euh, doy na war. nga nga dóor ko arrêt. Euh, man man dama ko xoromal xoromal suuf mu génn moom <laughs> mu dab ma di ma song. <laughs> waaw mais xam nga. ginnaaw ay jàmm loolu moom mais loolu moo lay wan ne la assemblée. assemblée nationale war nañ ko xoolal. gis nga assemblée nationale tey dañ ko waroon tas. fi may mhm. wax ak waaw loolu moo tax Macky sàll génn benn loi. Mhm. pour ne assemblée kenn mëntu ko tas. ok maanaam état mënut tas assemblée. assemblée mënut tas gouvernement ndax gouvernement amatul mhm. loolu lépp mi ngi koy doon xool pour 2022 bu ensemble opposition bi gagné duñ mën a daane gouvernement bi mhm. day def cohabitation mais xam nga ñoom mhm. comprendre naa ne xamu tax mooy seen seen ëllëg Macky Sall ci loxol Macky Sall la nekk ñoom ñoom bu fi Macky Sall mhm. du ñu nekk ndax déetul déetoon iwute fii te man bu fi Macky nekkee damay nekk après Macky damay nekkaat mhm. ndax suñu tubaab sàmm président sax jeexal na ñaari ñaari at ko mais ñoom bëgguñu Macky dem de ah, parce que ñoom moo yor seen xorom troisième mandat moom xam naa ko ci laaj mais euh, honorable boo gisee tey jii ah euh, au niveau de l'Assemblée nationale wala arène nationale mm. mais da ngay yaakaar ne da ngay woo euh, tëggkatu bàkk yi rek ñu tëggal leen pour ñu combat mën a ay saaga ay diw ministre bu dugg foofu ne ñi ñi ay mbaam lañu député yuy xeex bay ñuy gis ay mbarakis yu naaw mais loolu est-ce que tey jii c'est digne d'un assemblée nationale moi je pense que ne aujourd'hui jot na dëgg-dëgg ñu éclairer la lanterne de Sénégalais mm-hmm. si toj-toj yi nga xamante ne mm-hmm. Cheikh euh, sëñ Abdou mu koy wax mm-hmm. Cheikh Abdou Bara Dolé ay ay ay ay toj-toj kese ma wax la benn affaire mhm. gis nga koo fekk mu joteeg nit génn publiquement naan duma naa ko xamal ne dañ koo duma déet waay <laughs> parce que xam nga man mhm. Cheikh Abdou jote nañu mhm. mais man journaliste sax gisuma pour mun ma laaj lu ñu jote parce que dama jàpp ne man la ma seqoon nag Cheikh Abdou lam ma wax man je pense que ne faj naa ko ni ma ko war a faje pare naa ci. xam nga nag nit xam nga nag nit ki. ñaar fi mu toog xëy assemblée. après xam nga nit ki. nit non wax loolu yow tamit. kon kon yaa ko duma. xam nga man. man ñu ñàkk fay doyee xam nga man rus naa xam nga ni moom maa ko mën yow xam nga ni maa ko mën ah doy na waar. bi xam nga man sëriñ bi du mën a taalibeem. waaw loolu xam nga ni moom. maas taalibe du mën a sëriñ bi. maas maas xam man sama niveau de responsabilité. Mhm. rus naa sax di nettali xuloo wala xeex. Mhm. du ma ko defal kenn. ok dëgg man saaga na ma fekk naa ko si óol ba def naa ko li ma koy def pare naa ca. <laughs> ku def yow ku def yow ku njëkk a dóor. du dëgg pare naa ca. mais kan moo njëkk a dóor. <laughs> Ah, léegi nag maa ngi si tuub bi porte bi ngeen def nii yéen toog nii. kii naan duumu naa ko kii naan noo maa ko duum kii naan nangam nangam kon yéen yéen a ngi dëggal maas bi amoon këram ah, assemblée nationale am hmm? maas loolu man mënoo ma ko wax loo hmm. parce que je suis assez responsable quand même pour mun a toog fii di wax ay waxu yoo waxu naqas ak kanang yooyu waxu euh, yu daanu si charrette hmm. wax dëgg yàlla man nekkuma si yooyu moi je suis à l'assemblée nationale pour travailler pour accomplir ma mission donc loolu laa fa nekke du dëgg waaw y' a y' a des des troubles partout des incarces euh, qui qui euh, toujours euh, est-il nationale moom day ab yu mel noonu. Mhm. mais toujours est-il que man bokk naa si ñu naan assemblée warul doxe nii. c'est regrettable ñaaw na rafetul. Mhm. saaga biir assemblée nationale surtout saagante yooyu ñuy def. Mhm. ñaaw na rafetul xam nga sànq dama ne. dama ne tey dinaa wax li nga xamante ne nii. toj-toj yu sëriñ bi wax. Mhm. mi ngi ni saa wu ñu waxee mu ne Macky Sall dafa ñëw Touba sëñ Baara. di jooy di jooy. waaw du dëgg. j'ai les vidéos. waaw je vous défie. waaw montrez les vidéos. waaw il faut il faut montrer ça. waaw mail exclusivité bi dinaa nga teg ko. mail ah, exclusivité bi dinaa la ko yónnee boo ma ko yéene ma teg ko teg ko ñu ne ma terroriste la. waaw beneen bi waaw mën naa koo teg nag. dinaa la ko yónnee nga teg ko ci émission bi bu la neexee. non koy génne léegi. xam nga beneen bi. voilà xam nga tey jii bu ne. man li may wax si loi bi. Mhm. bu ñu génnee ak li ma koy wax du benn. Ah, loolu nga ma waxoon xam nga sama sëriñ la. waaw du dëgg. Mhm. munu ma ko wax ne ko sëñ bi waxoo lool <laughs> waxoon nu mu newe noonu du dëgg mhm. du dëgg loolu toj toj bu mag a mag a la xam nga man par exemple <laughs> ragalu sëriñ bi ragalu ma leader am hmm? leader am sax ragalu ma ko opposition bi toute réunie ragalu ma leen bay mën a wax dara si biir assemblée ba. parce que génn naan ko sëñ bi naan nga yor de du sa doole bopp de. du dëgg ah. xam nga loolu ay waxu caaxaan la. <laughs> donc il faut que ma élucider. Hmm. ok tooxi yi nga xamante ne sëriñ bi daf koy wax. Hmm. parlant de Abdou Mbow. mais yàlla mooy bind. Hmm. yaa mooy bind nit am yaram. yaa ko tudde mooy bind nit tuuti. mais Abdou Mbow yàlla may na ko mat. may ko diplôme communication la def comme yéen ñi. am am doctorat am en Sciences Po. fële si France ak loo ko mën a wax. wax dëgg yàlla loolu. Mm-hmm. absolument nañ ko ko nangul. Mm-hmm. am na dayoo bi am na mat bi. ok du dëgg bu toogee fii naan xaw ma piij mi xaw ma lan. man damaa tudd warul warul jiite assemblée ah, mais ma ko de non. wax de ah, loolu dañ ko leeral. waaw s'agissant maintenant parce que plateau yëpp yu mu dem. parce que ñett bii mooy ñetteelu yoon ñuy daje plateau. maa mm-hmm. beneen bi il a parlé de. Fatou Makhtar Ndiaye. Mhm. ñu ngi koy ñaanal yàlla. yàlla mhm. woyofal suuf si koom. ok ñu war a leer. bu war a leer waaw yàlla woyofal suuf si koom. Mhm. donc bu ñu naan mbiru Fatou Mata Ndiaye war nañ koo leeral mais ñun si loolu lañu ànd parce que suñu camarade de parti la woon. ok du dëgg suñu responsable des femmes pikin la woon. ànd ak awa ñu nekk kii diwo di liggéey di di liggéey fële ñu nekk na la donc kooku. awañaa ku ko tudd si problème yooyu wax dëgg yàlla bu la porté plainte sax mhm. yaakaar naa ne war nañ laa mën a déglu te war ngaa mën a am problème ok donc tout ça mhm. pour dire que ne gis nga assemblée nationale mhm. opposition bi toujours ñoom ñoo fay indi problème yooyu tey mun nga revisiter vidéo yu mun a circuler yépp depuis le début de la treizième législature ba léegi ñan ngay dégg ñu saaga ñan ngay gis ñu saaga mm-hmm. sont les députés de l'opposition vidéo bu mujj moom mii la ñu wane muy saaga ndey mm-hmm. maam jaara Fam la ñu muy saaga ndey Toussaint Manga la ñu wane muy saaga ndey seen député boobu aussi ah eh, eh, Mendela oh, Mendela ah. ki dëkk député Aliou Sall waaw député ki dëkk Guédiawaye waaw Guédiawaye aussi mm-hmm. non Aliou Sall amul ah. député Anna ah. waaw Anna saagawul saagawul ndey lu mu def saagawul ndey lan la wax vidéo yaa ngi fi lan la wax non man xam nga man du ma du ma revenir ci wax ci coow la kay ñafa saaga bëri xam nga xam nga sëriñ non non bu ñu toog fii ne maam saaga Cheikh mais ñoom ñooñee kii magam lan lay lan lay wooyee ministre de la justice foog nga ne dans une république qui est normale mm-hmm. hmm? dans une république un républicain un député de surcroît. Mm-hmm. un président de groupe parlementaire. nga ministre yow ministre toog nga naan ko. monsieur le ministre de l' injustice. waaw après. kii kii saaga sax def na ko ministre bi déedéet. moom en plénière moom nii je te ah yow ministre bi yow. dama ne ko amoo xam-xam heure ba fu ñëw coow am. yow musoo gañe benn procès yow musoo gañe procès. loolu laa ko wax loolu saaga la. yow loolu saaga xam nga te xam nga non non non non bul ak askan wi loolu du saaga. loolu la wax ministre bi ministre du maire daal ni maanaam maanaam yéen ay mbaam ngeen. gis nga ñii dañ ko war a revoir. ok du dëgg. dañ ko war a revoir xam nga xam nga ministre boo xamante ne nii. ministre boo xamante ne. c'est un avocat international. fu mu mas a gagné. s'il te plaît. a la mas a gagné. s'il te plaît c'est un avocat yow mi koy défendre xam naa ne da ngaa bëgg tuutam moo tax nga di ko défendre. wér na la nii waaye xam nga ni ministre boobu moom moo gën a niil gën a niilaat ci gouvernement Macky Sall ok léegi may ma ma danaa danaa terminer heure boo koy tax di ko défendre xam nga lu tax ma wax ko mooy tooxi duuna yi nga xamante ne daf koy wax hmm. il ma leeral ko parce Euh, troisième plateau bu ñu dajee mi mi ngi nii. Mhm. ministre bi c'est un avocat international. te defe naa ne avocat ku nul. Mhm. Euh, yaakaar naa ne mënoo doon avocat international. Mhm. te yàlla bàyyiwu ko. mais est-ce yàlla bàyyiwu ko te aussi. li mu naan dafa traité les députés de mbaam loolu du dëgg. ah bon loolu amul. moom daf ne je ne pas on m'a di que euh, je ne répondrai pas. Euh, un coup de pied de l'âne. kan mooy l'âne. du dëgg. kan mooy lan. Euh, madame la présidente. jéem a Ndiaye non xam nga yow xam nga ah, loolu moom xam nga sa dommage quoi. gis nga ñii loolu moom doy na wax ñii waruñu leen yónni si ñii waruñu yónni si ay plateau. sëriñ bi dama fay wéeku mbaam sëriñ bi waaw. waaw kon moom mooy. kan kan mooy mbaam foofu. sëriñ bi sëriñ bi bàyyi ma ma wax ba pare. Hmm? xam nga non xam nga li nga wax dafa barte mu ñu si jëlee benn njëriñ. aussi ala kuliyaal ah, ala kuliyaal. mu ñu si benn njëriñ may ko mu daane ala kuliyaal booy wax da nga war a wax xam-xam. voilà may ko mu daane mais nit ko amul xam-xam. ala kuliyaal may ko mu daane. ala kuliyaal plateau bi ñoo ko bokk. waaw mais te làmmañ mënu mënul lekk morom ba te ñorul loolu solo mooy booy wax nga wax a xam-xam mënoo ma empêché mais mënoo waxee fii amoo xam-xam boo waxee s'il vous plaît s'il vous plaît mënoo ma empêché la mm-hmm. yi nga wax fii tey ma koy feeñal du dëgg loolu waruloo ko wax ministre bi ministre bi présidente commission bi moo jóg bi bi ngeen demandé pour que qu'on qu'on la procédure ñu arrêté débat bi sur la loi sur le projet de loi si la jóg la présidente de la commission. fekk ñoom traité nañ ko de tous les noms d'oiseaux. Mm-hmm. Mm-hmm. mu jóg ne ko ministre bi yow bul wuyu mbaam bu la weqee nga weq ko day mel ni yow mbaam nga. Mm-hmm. loolu la wax ministre bi ministre bi ne man du ma tontu du ma du ma répondre au coup de pied la. mu ne dafa traité député yi de daan mais ça c'est pas vrai. ok mm-hmm. wax na aussi waxu chrétien yi te ça c'est trop sensible moom sëriñ la. Mm-hmm. xam na. relation chrétien bi génn asam sax lan moo ko génne. kan moo génne baatu chrétien bi moom xam na relation ok s'il te plaît Mass. non il faut moom xam na relation kër diine ji ah. ak euh, ñi nga xamante ne moom mooy chrétien yi. Mm-hmm. moom je pense que ne xam na relation boobu. moom en tant que sëriñ. waru wax loolu parce que. ministre bi daf ko waxee de bon foi daf ne carrément man du ma chrétien. waaw chrétien yi ñoom ñooy wax naan. buñ la mbéjee si mais lan mooy yoonal foofu noonu non wax ay chrétien ki musulman loolu dañu fay loo am dëgg nit nag war nga xam ne loolu erreur la quand même non non non non non non s'il te plaît ma daane waaw mais foog ñu foog ñu jàll si s'il te plaît mais ma daane xam nga loolu yëpp pour wax ne non c'est dommage gis nga gis nga ñun <laughs> gis nga ñun nous sommes des. des yi gis nga leen de. yow mi bokk yow mi liggéey soxla gis nga ne député APR yi. nee la sànq. inconstitutionnalité. ok loi bi. Mhm. ñoom amuñ benn argument. amuñ benn argument buñ ko attaqué. Mhm. Euh, conseil constitutionnel. ma lay wax nag ne la. Mhm. ça montre. Hmm, que président de la république Macky Sall c'est un démocrate. c'est un gis nga pro promulgation loi ba dé ba léegi dégg ko ko. donc comme que dañ ko attaqué au conseil constitutionnel le président attend le conseil constitutionnel va donner son verdict. n'est-ce pas. Okay. donc ñun loolu la ñu gëm. ñun dañu ñëw si réew mi. d'accord pour doxal démocratie. c'est la deuxième fois ma naan leen may leen dugal ma tu n'as même pas fait attention. dama ne député yi ñoom ñaar ñëpp laa am question bu ma leen di poser. tu vois c'est bien beau ngeen nekk foofu di xeex di xuloo c'est bien beau. Mm-hmm. loolu si assemblée yëpp lay am à Paris aux États-Unis en Allemagne lépp am na fa. Mm-hmm. mais ndax yéen a ngi xeex ak ak yelleefu sénégalais yi. bu doon ne si loolu ngeen ko def en fait mu jar ko mm-hmm. Mm-hmm. mais c'est pour votre en c'est personnel ay xastante ngeen fay def di fa xuloo di fa xeex ah, parce que c'est personnel mais yéen fekkee ne ma rek papa maa ñëw sànq ba léegi yéen a ngi wax ma naan leen may leen ma may leen sama baat dafa dee mm-hmm. te tey sama xol nii xol da ngeen may dégg yaa ngi dégg bu fekkee ne jug ngeen ngir xeex ndox bi wàññeeku d'accord jug ngeen di dóorante ay kurpañ euh, location wàññeeku d'accord dina ko jar. bu fekkee ne jug ngeen xeex ngir euh, euh, denrée de première nécessité yu wàññi. Oh, c'est bien beau d'accord nag mais yéen c'est pour votre propre compte personnel. pour lan ak foo leen ko teg yéen maanaam yéen a ngi fi pour pour askan wi ndax pour seen bopp. yow moom xam naa ne vous pour le président Macky Sall.